mooy gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci sang bu tedd bi ñi ngi dalal lépp luy autorité bu ñëw teew fii

Moy la représentante de l'IA ndax njang mi fi ci bir Thiès ñom ñoko ko bu lolu wesso ñi dalal yenn autorité yi nga xamanteni ni ñi ngi dépendre ci IA muy ñi ma service ñu gën ko xam ci Thiès ville te Arfan jité ko tay sama kilifa di Matar Fall di inspecteur à l'IAF jiite délégation bi ànd teeg ku ñuy wax ab sa Ndiaye bi nga xamante ni mooy secretaire particulière u IEF bi ak ki nga xamante ni Wëlti Gueye moo yor approche genre ci IEF ba bu loolu weesoo ñi ngi dalal ñi nga xamante ni ñooy samay naataango président yi nekk ci association yi parce que tey Taïgini ils ont porté leur choix pour la coordination de toutes les actions de la fédération Kadior Jànkeen du ma fi toog di parce que d'abord nous avons a jéggalu ci heure bi nga parce que 10 heures nous avons waxoon nit ñi te am na ñoo xam que ba donc 12 associations yi nga xamante ni ñoo fédéré indi di nuyu aussi ñi nga xamanteni ñom ñoy les mobilisateurs communautaires parce que ñom ñoo dox suñu diggante ak el technique bi nga xamanteni ni le manager Alioune Dieng moo ko jiite ndax fédération Kadior Jànkeen ñaari patch la dafa am ñu fi togal el technique bi moy ñi nga xamanteni ñom ñoom yor liggéey bi ak ñi nga xamanteni ñoy population bi bu ñu waxee population bi wax président yi ak PCA bi mais bu ñu waxee aile technique bi wax ki nga xamante ni mooy manager bi di Alioune Dieng ak ñi muy liggéeya ndool ñu gën cee ràññee chargé de programme yi muy Cheikh saw bi ñu introduir ak Ma Anta Badiane bi toog ci sama ginnaaw mais loolu lépp su mënee nekk comme ni ma ko waxee mobilisateur communautaire yi ñoom ñoo ko waral parce que boo dee xool ñoom ñoo gën a xarañ ci liggéey bi ndax ñom la xam la population yi di xam ñu leen di aussi ci seen maintenant la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ce n'est rien d'autre qu'un don qui nous va droit au cœur pourquoi parce que c'est un don de vélo de 40 vélos pour un premier jet bu une association bu ñu des action de soutien à l'enfant démuni la raison d'être de Kadior c'est la protection des droits de l'enfant Et ku protection des droits de l'enfant c'est ce que la nation a de plus cher cette humanité en fleur donc ku jox suñuy donc euh, à l'action de soutien euh, à l'enfant démuni bi nga xamante ni Suisse la basé xalaat xale yi nga xamante ni ñi ngi en Afrique particulièrement au Sénégal ñëw ba Kajoor jànkeen jébbal leen loolu nous leur faisons mention honorable donc ma ñëw tuuti ci xale yi geste bii nga xamante ni moom la ASET def jëmale ko ci suñuy xale dafa am njeexital buñ ci xaar njeexital bi mooy lan bëri suñuy doom yo xamanteni dañuy génn école pourquoi parce que distance bi ñuy dox pour dem école bu ñu ñëwé dinañ son yenn saa yi lekk sax doo ko tal leçon doo ko tal ba finalement école da lay dégoûté donc tay bu ñu jëlee ay vélo yëkëti ko jox ko suñu xalé yi jeexital biñ ci xaar moy des rendements scolaires plausibles lool la ñuy xaar ci xalé yi donc yeen xalé yi message biñ leen di envoyer moy tay amatu len ben raison pour mën indil seeni parents yi ay résultats yo xamanteni ni du li ñuy xaar ci yeen vélo yi nak buñ len ko joxee waxuñu len fu ñu tourné fekk leen ci mbedd mi ngeen di dawal ak lolu éviter len ko parce que circulation ak xalé corne sax meuna la laa japp len ni vélo yi dañ len ko jox pour que vous puissiez les utiliser à bon escient à bon escient moy lan suñ leen ko joxé budul farata bu leen ko génné di leen ko dawal jël leen ko pour jangi jang bobu ñu leen di tax ñu jox leen vélo yi nak ay résultats yu baaxa baax lañuy xaar ci yeen ndax amna en Afrique et particulièrement au Sénégal seeni moroob buñ ko amone duñu waxati dara ndax groupe gi ñu yor di leen dimbali dañ ci ñaan yalla am ci ay kilifa euleuk ministre mën na ci génn président mën na ci génn lepp mën na ci génn parce que dafa am benn borom xam-xam bu wax ni mom su timé xalé dafa am ñaari sentiment yu koy animé ñaari sentiment yi benn sentiment bi sentiment de tendresse la pour limu mu doon xale beneen sentiment bi sentiment de respect la ndax lamuy muy doon donc xalé kuko fonkul

mais aussi di wax ni baxna ñu camper un peu débat bi par rapport à ki nga xamé né mo waral joxé vélo yi nañ fi à travers notre partenaire privilégié muy Thialfane lu mat euh, bu njëkk bi 90 vélo benen bi 120 vélo yi ñu joxone ay xalé mais président heureusement ba amna lo ci brossé ci walu résultat yi vélo yooyu bañ ko joxé ba légui bailleur bi mi ñuy laaj ci résultat yi ñi ngi suivre ba tey rek dégg nañ ci ñenn ñi ñu wax ni sax am nañu BFM ci ñi ñu joxoon velo yi parce que vélo yi bañ ñu koy jox dafa amoon condition bi ñu tegaloon mooy est bu ñu leen joxee ngeen jënd ay vélo dina améliorer bi nga xam ne mooy performance scolaire xale yi loolu loolu rek la ñuy joxee velo yi amoon ay xale yoo xam ne nii dëkkoon nañu ci ay béréb yu sori yo xamee ne que buñu daan ñëw duñu mëna ñibbi pour añ jang ci waat suñu ko défé dañuy raté cour yi ñu né nañ leen dimbali ñu réduire li nga xamee ne que ni mom moy trajet bi pour que mu impacté ci résultat xalé yi loolu baax képp ku fi wajuru xalé nga xamni vélo bi joxu ñu lako pour que ñi ci yoni ci kër gi joxuñu la ko pour que xale bi bu dul jàngiwul mu war ko yor dem foofu di ko luye ci biir euh, fii gis nañ fi ñoo xamee ne loolu mooy seen liggéey di luye ay velo wala seen mag jël ko di ko foowee di ci dem ay course ba bu yàq duñ ko mën a réparer loolu baax na ci Cheikh wax na ci beneen fànd bi aussi ci wàllu sécurité routière bi xale yi bu ñu leen bàyyee ñuy taxawaalu ak velo yi oto yi ñoo nekk ci tali yi kon parents yi war nañu euh, farluwaat ci loolu formation bi ñu leen di defal aussi dina leen permettre ñoom ñu nga xamee ne que ay xale lañu ñu mën a xam lan la ñuy moytoo ci anam yu basique yoo xamee ne que dina leen permettre ñoom ñu ñu ñu xam fu ñuy moytoo oto ak fu ñu war a daw ak ainsi loolu dama ko bëggoon sànni ci wàllu lan moo tax ñuy am vélo yi mm, du ñu mën a aussi continuer suñu discours di ko wax te waxuñu li nga xamee ne que ni moom moo tax ki ñu jox vélo yi tey mu gis ñu ràññee ñu parce que dañ fi nekk di liggéey avec un partenaire bu ñuy tuddee Thialfane muy suñu partenaire privilégié li ci ëpp ci financement ñi di ñu ko jox ci loolu liggéey boobu ñuy ràññee di ràññee ba la ñu jékki kenn koo xamee ne que ni Thiès la nekkoon amoon contact ak ñi nga xamee ne ñoom moom mooy ACED daal di ñu mettre ñi en relation ak ñoom ndaw si mi ngi woon Sénégal mu ñëw fi ñu def fi ay fan gise fi ñu won ko lépp li nga xame ne que ni dañ ko doon liggéey ci wàllu éducation parce que baax na ñu xam aussi ñoom ba ñuy ñëw projet yañ leen tegaloon yëpp dañ leen ñoom dañuy yëngatu ci wàllu éducation te lu leen gënaloon mooy ñu wan leen lan la ñuy def ci éducation yàlla dogal ñu nekk ak ñoom lu toll trois jours wan leen la ñuy def ñu ne ñu kon yónnee leen ñu ay projet ñu jéem a xool nan la ñuy lënkaloog yéen pour jàppale leen loolu aussi ba baax na nit ñi xam ko mais kon bu ñu liggéeyul woon ay résultats ak suñu bailleur kon xëy na tey loolu moom ñu gis ba ràññeen ñu ñu am ak ñoom nag li ñuy wax lëkkaloo ak ay contrat yu leer yoo xamee ne que ni ñoom taxaw nañu pour que Kadior Jànkeen nek sen représentant fi ci Sénégal pour doxal lepp lo xamee que programme buñu bëgg a la parce que nek nañu un sur la sous-région. amna leneen lo xamné aussi wax nañ mako ni ñom mësoon nañu nek fi Sénégal wax nañ ma ni dinañu doon am ñuy juggé ci sen dëkk di ñëw di may suñu étudiant à l'université Kou. ñooñu dëkk bañu ñu muy ACED dëkk ba ñu ne Suisse la à Genève la ñu basé wu mais li ñu leen intéressé mooy nan la njàng xale yi di demee ci kanam nan la structure scolaire yi mën a taxaw ba fonctionnel nan la ñu mën a améliorer les conditions d'apprentissage mais aussi les conditions d'hygiène xale yi ci école yi euh, dañuy soog a tàmbali ak ñoom jox nañ leen lu toll ci juróom-ñaari projet ñu ne ñu bi gën a tuuti moom lañ ñuy

ñun nañu bayyi comme ñi ngi def collecte de fonds d'ici quelque temps pour que ñu joxe ko. alaykum wa rahmatullah <clears throat> ma ngi nuyu ñep ma ngi ziar ñep si aljuma ji ah, di leen ñaanal jamm ak Salam. di remercier waa Kajoor Jànqeen di remercier aussi les responsables qui sont là ñi fi nek ñep ñu ngi leen di remercier commencer ci autorité administrative bi tek ci ñi nga xam ñoy membre fédération bi le président di nuyu aussi ñëpp ñi nga de ñoo bokk ci association yi ak manager euh, chef de programme ak superviseur donc man dama ñeu représenter Child Fund tay normalement le directeur des opérations intérim intérimaire Moussa Diallo mo mais il est empêché man ma ñeu tay kon taxawal Child Fund man je m'appelle Gallo Cissé ma ngi nekk comme coordinateur programme de renforcement de la nutrition à Thiès di rafetlu nak bu baax baax jataay bi parce que ñun ak Kajoor Jànqeen comme li wolof di wax naan diggante altine ak talaata la bis xeju ci donc bu doon ba nu àndee yàgg na te ba nuy ànd ba léegi ci ànd bu rafet la ñuy ànd donc loolu xanaa kay dañuy ñaan yàlla yàlla gën noo jàppale ba sunu ànd bi ñu am ci ay résultats yoo xam ne dana raw sunu njort ñun amuñu lu dul lu rafet rek la ñuy lan seq ak ñoom moom la ñuy gis liggéey bi aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax baax a baax li ci des xam naa wax tey du du du du du yomb parce que li fi jar a wax wax nañ ko. man l'essentiel, gars dir dañu di yedd xalé yi ak di len euh, ñaax man nak j'ai confiance aux enfants moi je sais que ces enfants là ñom ñep dañuy am ay moyens yu baax je sais que ñom xam nañu li len defal et je sais que en fin d'année, bu ngeen defee évaluation vous trouverez des enfants yo xamni ku ci nek sa moyenne dina dépasser 14 ou 15. donc man j'ai yéen la faral te je sais que li ñu bëgg ci yéen da ngeen ko def euh, parce que parmi vous y a un président de la république sax mën na cee génn ku nekk mën na cee génn kon nag.

di yobante man nak ay nuyo ci fédération kadior Jankel bi nga xam partenaire am la Child Fund ak tay jii di remercier partenaire bi nga xamante ni mooy ak ñom ñaar action de soutien à l'enfance démunie bi nga xamante tay tey président waxé jappalé élèves yi ci manam sen transport pour ñu dem ci sen école muy ay vélo di 200 vélos tey ñu réceptionné 40 yi nga xamante ni dañ ko war jox une première fois élèves yi loolu nag jàppale boobu boo gisee ñu def ko ci éducation tey jii dafa nekk loo xam ne wareefu sax suñu autorité yi la waaye tout le temps dañuy euh, wax na communauté bi communauté bi comité bi communauté bi ak fédération yeeg association ONG yi ñëpp ñu jàppandoo pour suñu jàngu doom tey jii lii ñu def day xeex déjà niñ ko waxee retard yi mu ngi xeex aussi ci bañ a jàng bi mu ngi xeex aussi ci coono gi nga xamante ni xale yi dañ koy daj ci bërëb yi nga xamante ni jàng bi dafa sori ak seen dëkkuwaay donc tey jii lii ñu def maanaam dañuy bëgg pour xale yi am ay résultats looloo tax ñu jagleel leen velo yi niñ ko waxee nag am na ay messages yu fi jot a wadd ñuy ñaax xale yi ne leen résultat lii ñu leen jox pour ngeen jëfandikoo ko pour seen résultat scolaire gën a mun a baax donc saafara seen jafe-jafe moo tax ñu indi ko foog naa ni tey niñ ko waxee di ngeen ko utiliser ba nga xamante ni loolu ngeen doon jànkonteel dina wàññeeku dingeen mën a jàng bu baax a baax te pour loolu aussi ñu ngi xaar ngeen am résultat pour wane ni ñi leen ko may juumuñu donc loolu laa amoon lu ma ciy wax di jaajëfal ñëpp. de remercier encore une fois partenaire de di remercier fédération bi nga suñu partenaire la te wax chaque jour éducation merci beaucoup. yal na ko yàlla saafara bon xale yi nga xam ni ñoo fi nekk xale yi liggéey ci wax yal na ko yàlla àggale ndaxte dafa am benn mag mu ni boo nee gune da ni ku parce que xale mën na doon ku mais xale bi dafa am fu muy toll foo nga xam ni parent bi ngeen wax moom mooy moom mooy yore ay responsabilité parce que kenn ku ci nekk bu tabaski jubsee euh, yaa nga jël sa benn xar di ci defar di di investir wala nga dem ci commerce bi wala nga dem ci leneen lu mel noonu mais man pour ma dama yaakaar ni investissement xale moo ci ëpp solo parce que xale bi nga jël mu doon euh, mu doon xale bu ndaw bu xamagul dara nga jël sa xaalis di def ci moom pour ëllëg mu mën a doon leneen ba nga xam fu ma taxaw wax ñu xam ni kii ci boppam def nañ ci moom boobu investissement la ma ragal ni kenn ko perte parce que dina la jariñ dina jariñ askan wi dina jariñ àdduna bi parce que tey ñi taxaw fii di wax seeni parents ba leen préparé xëy na kenn ku ci nekk am nga yéene waaye bari na ñu leen doon ñu leen formé loon doon bon ah, li ngeen taxaw fii di wax bëgg nañ ñooñu taxaw fii di ko wax kon nag olof dafa am lu wax mu ne am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën ba tax na parents yi ñun ñoo ci ëpp ñun ñoo ci ëpp solo maa ngi dégg Cheikh sànq mu wax mu nii vélo yi nga xam ni moom lañ ëkkati jox ko xale yi doonul vélo pour yi mais loolu man xam naa ci dara parce que man fu ma dëkk loolu def ci am parce que xale yi da ngay gis ñu jël vélo yi nekk ci tali yi di course di dàqante chaque jour nga gis ko démonter roue vélo dal di dem ci kii mu defaral ko ñëw fi monté waat ainsi xam nga loolu taxul taxul vélo yu jub parent bi buñ ko joxee vélo bi mu ànd ak xale bi bu demee ci kër ga li wax ni na ko farata di tax di jub ñun xam na luy farata ak lu dul farata xale bi bu poussé vélo bi génn ko nga ni ko foo ko jëmee mu ni damay dem tali ba nga ni ko dellool vélo bi ci biir bu fekkante ni jàngi jot na nga ni ko demal nga jël vélo bi nga dem jàngi bu ñëwee nga jëlaat vélo bi nga tëj ko loolu dama ragal ni parent bu nekk mën na ko parce que xale bu tollee ci foofu du xam lu koy lor mais parent yi du xam ne li koy lor parent yi ñu ñëw ci euh, bon ki euh, responsabilité yëpp ñun la maa ngi jégalu nag ci cadre bi ma yëkkati lu ci dëng wax dëgg yàlla du sama bëgg-bëgg waaye lu ci jub nag yàlla.